consommateur bi kenn protégé wu ko. dañ ko abandonné ak boppam. exactement te loolu faute état la quand même. exactement état la parce que état askan wi la war a liggéeyal. donc bu protégé wul askan wi. bàyyi ñuy euh, ñuy profité ci askan wi di enrichiru loolu injustice la ak illégalité quoi. Mm-hmm. donc. Euh, foofu dañuy poser question est-ce que contrôle économique mi ngi am ba léegi ci dëkk bi. léegi mën naa tontu ci loolu. Mm-hmm. contrôle économique. Mm-hmm. dañoo am à peu près trois cent et quelques agent mm-hmm. pour dix-huit millions de sénégalais. loolu doyul bi ñu gisee ne bari na ci ay yu sooxe woon yoo xam ne parce que soo leen waxee ñu ne amuñ agent yu doy. ñun ñu wax ak état ne leen nañ recruter. comme xale yaa ngi fi am ñu bari am nañ formation. te liggéeyuñ. ñu ne nañ recruter ay xale yu góor xale yu jigéen ñu jàppale leen. ci liggéey bi ndax gisoon nañ ne euh, soo demee ci koñ yi nit ñi dañ leen di jaay prix bu seer. mais duñ nangoo boole. parce que boo boolee boutiquier bi te moo lay lebal. Mm. <laughs> du la lebal. ñu ne kon léegi suñ jëlee ay xale yu góor ak yi jigéen former leen. Mm-hmm. ñu accompagner leen. Mm-hmm. ci quartier bi su amee boutique buy jaay lu seer ñoom seen yoon nekku ci ñoom seen liggéey la ñuy def. mooy les volontaires muy nekk les volontaires de la consommation. Mm-hmm. loolu ñun ni ñoo ko proposé depuis des années. ba finalement ñu d' ñu recruter 1000. ok effectivement état recruter na 1000. mais bi ñu recruter 1000 yi. liggéeyloowuñ leen liggéey bi nga xam ne moom lañ doon xaar ci ñoom dañ leen yóbbu ñuy recenser ay boutiques. et puis bi sax daf ñu ko xaw a def ci xaw a genre politisé ba tax liggéey bi demeewuloon li nga xam ne moom la war a demee. nekk clientèle politique yi. voilà ñuy recruter exactement exactement donc ce qui fait que. Euh, du voilà li nga xam ne moom moom lañu war a def tey jii mooy jël ñooñu réorienter leen carrément ñuy accompagner liggéeyu contrôle bi parce que état day wax prix bi lii la te du ko suivre. parce que xam nga nag commerçant yi dañ xaw a bari doole. gars yi ñi leen war a contrôler duñ leen contrôler yu mel noonu donc il faut que état jël yattam dóor carrément. bu mm-hmm. waxee ni prix bi lii la ñuy respecté ko. sanctionné ko sanctionné mm-hmm. sanction mais réel mm-hmm. léegi nag ñun ñu wax leen su état léegi jëlee prix ne prix bi lii la. xam nga am na ay trois cent et quelques agents contrôle. am na mille volontaires. muy 1300. ñu ne leen tam képp kuy takk der moo xam service national de l'hygiène moo xam direction de la protection des végétaux moo xam police moo xam gendarmerie képp koo xam ne gis nañ soo nekkee ci koñ gis policier gis na boutique bi respecté wul war ngaa mën a au policier bi mu ñëw faire respecter la réglementation su ko defee kenn du rëcc wala ñiy rëcc ñun nit tuuti lay doon loolu bokk na ci li nga xam ne jàpp nañ ne buñ ko defee dina tax ba décision yi état di jël pour ne prix yi lii la ñu mën koo respecter ndax tey jii état des fois day génne ay prix mais prix yi bu ñu ko respecté benn jour ñaari jour mu jeex. loolu musa am d'ailleurs oui koy xam wala ñu ne wàññi leen ñu bañ ñu bañ ñu bañ a wàññi parce que ñu ngi fàttali président Macky Sall bu mu wàññee mm. euh, bi muy doog a yegg si dem nañu presque ba ba ba weeru mars mm. euh, si at bi si topp et la baisse n'était toujours pas effective. parce que en xam nga toujours des résistances. xam nga waaw problème bi ci nekk tam léegi-léeg état day juum ci ni muy wàññee parce que yaa ngi fàttaliku concertation yu mujj yi ñu defoon. waaw bi ñu falee Amadou Ba premier ministre. voilà ñun ñoo wax état nañ wàññi nañ def concertation sur tous les produits de première nécessité. la vie chère. état d'accord ñu def def def def def mais état dafa def benn calcul. ci benn loo xam ne day changé biñ defee calcul bi ci liy changé le temps ñuy génnee arrêté bi loolu changé te jëluñu en compte changement boobu su ko defee boo jëlee arrêté bi li ngay arrêté boobu ngay arrêté du mën a nekk techniquement day am problème parce que dañ ni ko defee tamit baaxul parce que dañ dañ ko dañ jël ne grossiste yow mm-hmm. yow temps ngay jaayee yow détaillant temps ngay jaayee te waxoo tamit grossiste ñaata la war a jaayee détaillant bi xam nga bu fekkee da nga ne grossiste bi euh, détaillant bi yow war ngaa jaayee cent franc mais normalement yaa ngi war a jëndee par exemple soixante quinze jaayee cent mais waxoo ne demi grossiste bi yow soixante quinze nga war a jaayee détaillant bi su ko jaayee cent franc détaillant bi mën a jaayee cent franc. mais est-ce que foofu waruñu woon waruñu woon amuñu kii yu bëri yu ñu tëb parce que. Euh, état bu fekkoon ni dafa informer population bi. Mhm. ne prix sàngam temps lay jar. waaw ci produit yëpp. Mhm. population bi bu leen ko jënd au au-dessus de temps. c'est ça. nga xamante ni tey jii su boobaa grossiste bi ak demi grossiste bi ak détaillant bi ñoom il faut s'organiser. waaw pour consommateur bi du dépasser loolu. waaw état def na loolu maanaam wax na ne prix bi. information état bi nee na la yow 100 nga war a jëndee. Mm. moom la la gros bi war a jaayee 100. xam nga ne 100 la. détaillant bi jaaye la 125. da ngay xultu rek mais doo ko boole ndax la ma nettali woon sànq ndax comme moo lay lebal. et puis amuñu doo wax kenn kooku mooy benn comprendre leen également. da ngaa war a oote. ci numéro vert bi. ne sama boutique quartier nangam kii gars yi wàcc ñëw foofu. Mm. mais est-ce que contrôle contrôle. léegi contrôle économique yi. waaw nga xamante ni ñooñu dañu war a. parce que ñun daan nañu gis ay jamono. waaw jékki-jékki rek. ñu dugg di xool contrôle économique yi dugg ci boutique. waaw léegi loolu laa doon expliquer. Mm-hmm. contrôle économique dañoo bareetul. te liggéey bi demeetul noonu. mënuñu expliquer yëpp quoi. bon ah, mais da nga war a maanaam daf ci am ñoo xam ne. bon dañ ñëw waaw voilà day feeñ foofu daal. exactement ñoo xam ne bon da daal waaw. <laughs> léegi nag mm-hmm. euh, suñ bariwul. Mm-hmm. am loolu. Mm-hmm. te consommateur bi du boole jafe-jafe day am. maanaam dafa bari ñetti mhm. situation yuy bokk mhm. léegi-léeg nga gis consommateur bu boolee mhm. gars yi xaw a ñëw foofu tane tuuti léegi-léeg nga gis consommateur bu boolee gaa yi duñ ñëw donc yooyu ay ah, kii la boo boolee boo boolee moom bu subaa boo amul boutiquier bi du la lebal nit ñi voilà c'est ça <laughs> boo boolee moom bu subaa wala amul <laughs> mais beneen beneen boo xamante ni hmm. parce que euh, am ngeen euh, kii des consommateurs association des consommateurs. Mhm. mais am na tamit lu ñuy tuddee ay INACOI. waaw INACOI mooy kuréelu commerçant yi commerçant yi. Mhm. est-ce état bu njëkk ba amoon nañ lu ñu doon tuddee Sonadis. c'est ça waaw. les boutiques témoins voilà ah. léegi boo xoolee ñun en deux mille euh, deux mille deux je pense. Mhm. pousse nañ état ba état taxawal loolu. ñun ñu ngi ko tuddee woon magasin de référence. mais problème bi ci nekk mooy ñañ ko joxoon gérer wuñ ko mu dox. dañ ko lekk. parce que xam nga gérer boutique. dañ ko détourné wala dañ ko lekk. <laughs> waxal wax maanaam doxul daal en tout cas demoon nañ ba créer fi ay easy boutique. dénk ko ay waa CCBM yeeg yooyu mais. doxul lañ leen joxoon anam lañ leen financé woon anam. kenn xamul fu mu jaar mais en daal sottiwul. traité <laughs> sottiwul. <laughs> sëñ bi xaaral am looy moytu. ah non non en fait c'est xam nga. sama baay dafa ma waxoon mu ne ma <laughs> bul tooñ donc bëgguma wax loo xam ne du ma joxe firnde loolu rek la <laughs> mais daal doxut dem na ba benn moment affaire bi daal parce que xam nga dafa am lu nit ñi xamul. ñan lañ joxaloon la CCBM. waaw CCBM mooy ñan mooy Easy Boutique ñoom Serigne Mboup. ah ok bi ñu créé woon yaa ngi fàttaliku ay. Easy Boutique bi bëggoon nekk